السلام عليكم ورحمة الله مولانا الشريف الأصيل مولاي الشيخ الزبير حفيد القطب المكتوم مولانا أبي العباس سيدي أحمد التيجاني الشريف الحسني الفاطمي رضي الله تعالى عنه تحياتنا كما تعودنا على تبليغها وهي تحيات السنغال برجالها وبالنسائها بصغارها وكبارها كلهم أتوا بقلوبهم كلهم أتوا بأفئدتهم كلهم أتوا بمحبة أصيلة عميقة في صدورهم وأصيلة في مولانا أبي العباس سر المختوم والقطب المكتوب رضي الله تعالى عنه وكلهم يحبون مولانا شخص أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه ووفدنا ووفدنا هذا يضم من انخرطوا في الطريقة ومن يتمنوا ذلك كما يت كما يضم الوفد طائفة من الطرق الأخرى ولكن دفعتهم محبة الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه دفعتهم محبة في شيخنا التجاني وأنت حضرتكم أدرى فمولاي الشيخ الحاج مالك سي يقرر bi anna mahabbata cheikhna tijaani wilaya walan yamuuta man yuhibbu cheikhana illa ida saara waliyan bi ictina wa hada hada al amru al asil dafaca haulaai jamican rijalan wa nisaan ila al ityaani fi hadihi al xadra al mubaraka al tijaniya al ahmadiya al muhammadiya radi allahu taala ala saakiniha radi allahu taala anhu wa arda wa kulluhum ataw raajiina eh, فتحا وقبولا وقضاء لحوائجهم وكلهم أتوا وقد وقد جمعوا جميع حوائجه حوائجهم وجميع مطالبهم في يدك لتوصل هذه الحوائج وهذه المطالب إلى جدك الأصيل الكريم المبارك مولانا الشيخ سيد أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعلى كل حال حاج نجاسي الحاج عثمان جوب حاج ندونغو الحاج مور جوب الحاج بابكر الحاج عبد العزيز الذي هو أنت بمثابة والد له, له, له كل هؤلاء أتوا وهم الذين يحملون الجهاز الذي يحمل الإخوان دائما في عيدي ليلة القدر وعيد مولد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهؤلاء النساء منهم من تحمل حوائج لأبنائها ومن تحمل حوائج لنفسها yuridu an yarzuqaha allahu uh, zawjan wa baalan kariman tijaniyan mubaraka muwafaqa wa nasalu allaha taala an yastajiba daawatina lana wa haula maulana cheikh hadihi hiya alkalimat allati uh, kallafuni iyaha bitabligiha wa adunnu annaha qad bulligat wa jazaka allahu xeyran baraka allahu fik alhamdulillah jazaka allahu xeyran alhamdulillah alhamdulilah rabbil alamin salaatu wasalaamu ala sayyidina muhammadin as-saadiq al-amiin mi ngi sant yàlla mi ngi julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam al ixwaanu al fudala wal axawaatu al fadilat nee na mbokk yu tedd yu góor yi ak yu jigéen yi min ashaabi mawlaana cheikh radiyallahu taala anhu wa arda taaliba ak soppey mawlaana cheikh Sidi Ahmed Tidiane yéen marhaban bikum nee na mi ngi leen di wax ñëw leen seen kër a ngi nii في الزاوية الكبرى نينا تي زاوية بيغا خاني موي نداي زاوية يب الزاوية الأم زاوية بيغا خاني موي نداي زاوية يب ديغن ماك زاوية يب زاوية مولانا الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه زاوية الشيخ سيدي أحمد التيجاني رضي الله تعالى عنه التي بنيت على التقوى زاوية بيغا خاني كي راغال يالا لنكو فوندي تبخ وعلى محبة الله ورسوله أك صب يلا صب ينتبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والتي قال فيها الشيخ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لو علم الناس ما في زاويتنا لأتوها حبوا mu ni mbir moomu moom la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane radiyallahu taala anhu di wax ni bu fekkoonte ni nit ñi xam nañu lu nekk fii ci zaawiya bi waxuma la dugg avion waxuma la dugg oto waaye daañu ñëw sax bu ñu doon raam lu sore sore Sénégal di raam ba agsi fii Sidi euh, وكما تعودنا أن نستقبلكم دائما في هذه الزاوية التي هي داركم التي قال الشيخ رضي الله تعالى عنه وارضاه زاويتنا دارنا نفعل فيها ما نشاء نينا نيكو الشيخ التجاني رضي الله تعالى عنه وخني زاويه بي موي سونو كير نيو صوف رك مان نكو في ديف فنجدد لكم fa nujaddidu lakum tahni'a bi hadihi ziyaara nee na mu ngi leen di ndokkeel yéen ñëpp ci ziyaara bu tedd bi nga xam ni andi na leen ci zaawiya bi wa xaasatan fi hadihi al ayaami al mubaaraka min al asri al awaaxir min ramadaan nee na rawatina waxtu wi ngeen tànn te mooy fukki fan yu mujj yu barkeel ci weeru koor fa alhamdulillah nee na mi ngi sant yàlla hadihi al fursa la tata'attaa liljamii nee na lii occasion la boo xam ne du ñëpp ñoo koy am faqad tamannaha alkathir nee na ñu bare bare bëgg nañ ko lakin allah yaxtasu bi fadlihi man yacha waaye nag yàlla mooy seet xéwal bu ko neex mu jox ko ku ko neex fa nuhanniukum bi xudurikum huna nee na mi ngi leen di ndokkeelaat ci seen teew bi ngeen teew fii ci zaawiya bi saa'ilina allaha lakum muqaaman tayyiban nee na yal na yàlla jàppandala leen ngeen am fi dal wa ziyaaratan maqbuula ziyaaratan maqbuula nee na seen ziyaar bii ngeen di ziyaara yàlla na ko yàlla nangu fa kullu man waraakum min al ahli wal ahbaab nee na ak ñi ngeen bàyyi gannaaw hum xaadiruun hum xaadiruun ay soppe ay dëkkandoo ñëpp dugal na ci biir ñaan gi yàlla na yàlla faj seen aajo yi yëpp biir ak biti hum xaadiruuna al aana maana nee ngeen bàyyi ca kër ya nee na ñoo teew sax ànd ak yéen ànd ak nun ñoom ñëpp teew nañ fa kullu ma sataqumuuna bihi min adkaarin wa salawatin fi hadihi zawiya al lépp loo xam ni da ngeen ko def fii ci ay naafila ay werd ay ñaan فضل كثير إن شاء الله nee na ngëneel lu rëy rëy rëy la inchaa allahu taala أسأل الله تعالى أن يضاعفه لكم nee na mi ngi ñaan nag lu ngeen fi def yàlla nangu ko waaye di ko ful di ko ful muy dem di wéy wa an yataqabbalahu minkum nee na mu nangu ko nag ci yéen li ngeen def yàlla ko yàlla nangu tumma nad'u li kulli shaabi Sénégal nee na mi ngi ñaanal sénégalais yëpp bil amni wal istiqraar jàmm ak dal yal na ko am képp kuy Sénégal rek Sénégal it yal na ko am wa rafahiyati ak naataange wa taaluf ak bennoo jàppante soppante wóolonte ñemente ala mahabatillahi wa rasulillah yooyu yëpp ñu def ko nag ci soppe yàlla rek sopp rasulillah sallallahu alayhi wa sallam sopp Cheikh Ahmed Tidiane wa hadihi alziyara allati seen ziyaar bii nga xam ni allati hiya ziyaratun tanuubuna fiha an il jami nga xam ni wuutu ngeen ci seen i bokk yëpp seen dëkkandoo yëpp seen xarit yëpp seen soppi yëpp kenn ku ci nekk wuutu na la mu am wuutu na ko ñëwaaleel na ko nastaxillu hadi alforsa li tajdidi awraadikum wa adkaarikum nee na mi ngi mi ngi jël occasion bii nag ku ci amee woon tariqa mi ngi lay yeesalal sa tariqa loo amoon ndigal ci tariqa bi lépp mi ngi koy yeesalaat rajiina rajiina allaha taala thabata lana wa lakum nee na mi ngi ñaan ñun ñëpp ñu sax ci tariqa bi dund ci dee ci wa taraqi fi madariji tariqa te tamit yàlla nañu yàlla yéegee ci escalier yi nga xam ne mooy escalier tariqa bi bi ma yéeg di dem di dem ba ca kaw bi ma yurdi allaha wa rasulahu wa mulaana cheikh ànd ak loo xamante ni dafay ànd ak ngërëmal yàlla ànd ak xéewali yàlla ànd ak la yàlla gën bismillahi rahman dugal naa ko seen aajo yëpp mais ngeen ku nekk na yéene aajoom